mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak mi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu wi mbégte la ci ñun saa su ne ñuy ànd ak yéen ci waxtaan wi ngir dem démb waaye itam taxaw ci tey xool fi ñu toll ci lépp lu mu mën a doon tey nag dañuy waxtaanee làmb làmb nag ku ne xam na ni fan yi dafa nekk euh, au devant de l'actualité ni ñu koy waxee ndax coowal CNG gi ñu bëgg ci prox ndollu rek waxtaanee làmb démb ak tey am nag euh, dalal ci El Hadji euh, Ndiaga euh, di magum léebu moo xam ne dalaloon nañ ko fi jamono yële weesu doon waxtaan ci mbas yi jota dal ci Sénégal ak Ndakaaru ni nu ko dundee woon waaye itam yàlla may ko mu fekkee lu bari ci làmb doon ci itam gëstu ñu am mbégte lool dalal la tey Samb ngir waxtaanee lii ma fi junj dalal ak jàmm ci démb ak tey. Ah, maa ngi leen di fay di ñaan yàlla ñi nga xam ne mooy ñu may ñu mën waxante ak yéen nga xamal ko ne ko àdduna wër ngir képp koy gërëm moom yàlla di ko sant bi mu ñu maye ñuy noy ñu nekk na ci biir njaaxare boo xam ne mooy ëpp ji lëmbe àdduna moom moo ko fi andi moom moo lu teg ko teg ñëpp kenn mënu ci dara ko dul moom ginnaaw biñ ko sante moom yàlla ñu ngi koy ñaan na mu teggee ñu ko di ñaan jàmm ci réew mi muy Sénégal ñu bokk dëkk di ñaanal jàmm ñëpp ci weeru koor bi ñu nekk yàlla may ñu oor ko ci jàmm ak salaam yàlla yàlla ko yàlla nangu jërëjëf Samba am na solo alors ni ma ko mm-hmm. waxee euh, làmb la ñu bëgg a waxtaanee tey ndax euh, mm-hmm. umpalewul kenn ne làmb na mu doon amee démba ak ni muy amee mm-hmm. tey lu baree baree bare wuute na ci ndax euh, ngir door mën nga ñëw dikkal ci làmb démb na mu daan amee na ñu ko doon doxalee ak la ca aju li am bi démb li mu daan amee ci ci ci li ma fekke lébu laa bu dëkk Ndakaaru ci dem laa juddoo fekk baax yof mag mu dégg lii ma wax di nga xam ne fi ma juddoo péncam làmb la fi ma cosaanoo dëkk làmb la Cap Vert gii laa dëkk muy presqu'île du Cap ay lébu ñëw fi dëkk te poom lébu yëpp làmb la ci booru géej ak ci pénc nii làmb meloon ci ñun lébu ak suma mbokki séeréer yi ak suma mbokki walo walo yi ak suma mbokki tukulóor yi ak suma mbokki ajoor yi ak bool bool yi ñun ñëpp làmb mooy suñu po parce que ci góor gu nekk daal natte moroomam ba xam naka la dooleen toll muy nekk foo bëri simple muy mbapat ci la dem ba yàgg ñu andi bëri dóor ñu di ci fay xaalis bu bëri mbapat nag dañ ko daan dëgg ñu ci daan ñëw di bëri dañ ko def fa rek daal jël sab drapeau ñibbi ñu ne diw mu dëkk dëkk sàngam ba penc sàngam jël na drapeau ba hmm. ci dañuy dem ba ci suñu mbokki séeréer yi di bëri làmb xam ne ak saalum saalum yi dañ koy wax birale birale mooy làmb joo xam ne dañ koy bëri timis ba bër set ko daan yóbbu nag mbaa ñaari nag boo demee saalum ñay tëgg làmb du ñu géwél dafay tëgg sabar géwél dafay tëgg sabar nga dem ci dëkk séeréer yi géwél bi ñooy tëgg donc fa la woon fa moo nekkoon pawu góor hmm. ci jamono li ma fekk ñun nga buy cap yi téeméer dëkk yooyu ak ñaar benn dañ daan bërënti waaye yoof dañ daan jóge yoof dugg woto dem caare mbappat bëri ji bu ëllëgee dëngëj tëgg mbappat waaye yoof jóge fi dem dëngëj bëri mbappat waa Cambérène jóge Cambérène dem Tëngéej bëri mbapat waa Yaraax jóge Yaraax dem foofu bëri mbapat bu ëllëgee waa Yeen bëri bu ñu tëggee làmb ñëpp jóge fi dem fekki leen dem ay ay loola woon dëkk bu tëgg rek dëkk yëpp bàlli booba daaneel géej gi dem moo xew ci bëri amul daan këdde amul daan dëgge ndax matulaay ak léegi suñu mag maam seeni caw mu leen wax maam seeni caw caw ndaawi ko doo borom daan jéggi c'est-à-dire bu la daanee li lay jéggi rek dem yoonam nga jot ñun loolu lañu fekk ci làmb bi démb mm. amul woon xuloo amul woon xeex amul woon saagante mm. dafa am benn pratique ba amoon ci làmb bu ñu bàyyi mooy mbër dafay ñëw ci làmb ji tuus tuus mooy tëgg moomu ñuy tëgg mu ngi daw di wër géew bi bu paree bu dawee benn tour ñaari tour ñetti tour taxaw ci digg giir bi ñu changé tëgg mhm. ñu tëbal ko mu tëb ci kaw di cëppeelu di tëb di cëppeelu di tëb di cëppeelu bi ba nga xam ne fa àgg ci daw lu ñuy wax tës biñ bu mhm. fekkee doyar moom dàng mu ñëw sumeeku lekk gembu mhm. ci diggante boobu mbir mi su gemboo benn waxtu wër tuur bi te di bu benn war ñaar daal di ndënd bi samp ko ci digg géew bi ku ko ñeme ñëw ñu dëkkante ci day taxaw tàllal ñaari loxoom ne pare naa ko bëgg a bëre ak man ku ko ñeme ñëw na tàllal ñaari loxoom na ko pare naa ñu tegante dënna puusante légèrement wala ñu tegante dënna jàppante ay loxo kii puus kii puus ko defee nga teste kii ma dëkk nii Mm-hmm. gis naa kàttanam ci doole naka la war a mun a toll. Mm-hmm. war naa ci man xam ndax mun naa bëreeg moom am dëkk. Mm-hmm. ca ngay nangu. waaw kon nangoo ngeen bëre ci saa si la da bëre aareel ñi nga xam ne bëre door la yi tamit da ngay déparé pour ñu xam ne da ngay ngemboo sa kër. ay sabar ànd ci tama dugg oto léegi bu jëkkoon da ngay ay tama. dox ñëw ku ci mel ni maam góor gu njaay ànd ak mbay géey ak waa Fass ñu gém ba Fass dox jëm Iba Mar ku ci mel ni Youssou Dieng dafa mhm. daan def également jóge foofu ci euh, ngalaas seen ko yëkkër jëm foofa ku ci mel ni Amadou Kati Diop noonu Souleymane Diaw Ousmane Ngom waalo waalo yooyu dañuy ñëw ba Ndakaaru bu leen neexee ñu ñëw dugg ci làmb ji ak seen xaftaan tuus bàkku bu leen neexee ñu ñëw ndakaaru laaj ay sër yu ñu àndiwaale ak fa ñu daal ñu jox leen ko ñu ngemb ñëw ci làmb ji mais làmb bi léegi nag da ngay ci làmb ji sol jean sol liket sol jaket <laughs> sol sol sol sol torpedo maam sol cap dégg dugg ci làmb ji façon boo xam ne fekkee ba dayal jël ndënd bi ñu di samp ba pare doo ko delloo da nga yël di ko bu ñu dëkk fee jël ndënd bi sànni. sànni waaw. jël bi koy tëgg doo ko fay da nga koy may xaalis ci buñ la maye làmb bi démb loolu lay fi daan demee. ñun loolu fekkee ñun loolu la parce que ñun ay libu lañu libu boo gis nag mën na bëre. Mm. bu bu duggee ci làmb ji bëre bu toog bu njàmbul rek mën naa bëre hmm. dégg nga man góor di wax naan fekk njaay ak atumaan ma njaay ngóone mu jëkk te nga jëj awu dem ba bàyyi maar su ma bëree mbër laa su ma bëree wulit mbër laa am na mbër yoo xam dañ koy doon dawante lay doon ci maam ci bàyyi ba ci sët hmm. ñii doon mbër gi ci seen nijaay ñii doon na mbër gi ci seen mag ñoo xam ne dañu dëkk ci koñ bi mhm. mu nekk mbër xale yëpp mabba ànd ak moom di leen jàngal bëri ku ci mel ni Birahim Fall mu ngi dëkkoon Fass ñoo ngi ko boy naaf mhm. mbër la woon mu nekkoon Fass boo xam ne mu doon bëri la mu doon bëri yëpp ko defoon Mame Goor Victor ak Mbaye Gueye ñu nekk Fass ak Faga 1 ak Faga 2 ak Mbaye Cissé ak Mbika Papa Kan Ndom ndem si yàlla ji ak keneen dem caaro yu fekk fa mag ña fa nekkoon dañuy dem Papa Kan dañ fa bàyyi le poncheur de sam hmm. nga dem Tëngéej fekk fa Gammu Gueye ak Boos Diop ak Ousmane Diop nga dem Tundu Jalaaw fekk fa Gazu Njaay ko dégg ak Ousmane Deng bu Giru nga dem fële ci Mbuur fekk fa Cheikh Jaara hmm. ak Cheikh Mbaba ak Modou Fune nga dem Thiès fekk fa Landing Landing Landing Jàmme séeréer la bu ci affecté ci kaamu sapeur pompier hmm. mu nekk fa nekk mbër nga dem gën gineew fekk fa Modou Bousso nga dem jëndeer fii jëndeer mooy kaayaar nga xam kaayaar mm-hmm. boo ngay jëndeer da ngay réer mm-hmm. mais kaayaar après bayaax sa ngeen di wuti jën ci ca kaayaar tund boobu ñaar fukki dëkk laa juróom benn wala mboor mbay nekkoon dem na ba nekk conseil municipal ci meeru ci meeru kaayaar mm-hmm. Abdourahmane Ndiaye Falang Massane Mbaye mbiri ndaw bu ñu joxe àddina démb guddi ku nekk dégg na ko. waaw Mbaye Gueye Diop le lion nga xam ne dañ ko boole combat fii ci Dakar ak Barabara ñu jox ko avance xaalis mu dem manifestation africaine ci defe benn carapite. Hmm. Abdoulaye Fafa la nekk ministre de l'Intérieur mu nekk dagal may hôtel licence carapite. dans la semaine ñu lijjantil ko licence dans la semaine mu jënd carapite. dans la semaine mu jël oto bi yóbbu ko crédit foncier boobu quarante huit yi ci biir équipement bi ñuy tax banque lañ ko ci kër ma baaba benn ak alaaj juusu benn newatuñu fi daaj ñeent dugg ci sa ñeent ak banque ci sa càmmiñ hmm. bi ñu defal ko mu jël ko ñu yóbbu ko jandeer le dimanche moo dugg ci ànd ak waa jandeer ñoo daan bara bara ji de coton mm-hmm. xool yooyu waaw xam ne c'est des choses tout mm-hmm. en pleine sportivité nit ñi di ko fawee mm-hmm. mais léegi loo ci gis lu kenn xamul et puis nag am na loo xam ne lu lu leer la mm. mooy mbër yi fi nekkoon weer bi léegi ñu bëre weer wala lay ñu am benn combat mbaa ñaari combat dañ daan def combat combat combat yoo xam ne day nekk lutte croisée waa Fass bëri ak waa Caaroy waa ak séeréer waa Fass bëri ak waa Waalo Kajoor ak Bawol bëri si ak waa Dakar donc on da daaw ñu toog benn at. boo xam ne xamuñu woon année blanche. xamuñu woon. Hmm. da ngay yaa ma daan tey ma ne sama da daan mel ni tournoi daal. tournoi la woon tournoi tournoi. Hmm. interminable tournoi de lutte gars yi daan def. d'accord des combats croisés toute la saison de lutte. ma wax ci turam ndax bu gën a waa fii nag dañuy gis mbër yi dañuy jàpp benn combat waaj ko ñaari at mbaa lu ko jege li li yàq làmb a ngi noonu te li ko def mooy làmb bu jëkkoon ma wax la li gën a leer li nga may laaj ni xam nga lu ko waroon hmm. bu jëkkoon da bëgg promoteur dañ bari woon hmm. sama benn papa bi ñu daan wax alaaji Yaxya Jóob mu ngi dëkkoon ci gël dàbb yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam da daan tëgg hmm. amoon na xaalis di fay mbër góor gi Jibi Jóob mu nga dëkkoon Wakaam da daan tëgg làmb góor gi Ali Jéen mu ngi dëkkoon Rebeuss ci kër maama Seku Caam hmm. daf daan tëgg làmb góor gi Alcantara Koulibaly hmm. Fall moomam école daj géographie bu la ci rëbb grand lamba nga continuer ci ñooñu góor gi mbay sàmmi balde la moom moomoon espace bi arène sénégalaise nekkoon ci gannaaw cinéma star mm-hmm. bayal baa nga fa ba léegi bi ñii mën la wax ne ñooy tëgg làmb ci Dakar te ñu dem ba progressivement bi ñuy bàyyi làmb mu am ñu ñu leen ñu leen relayé Basirou Diagne te gën a fi làmb Serigne Ndakaaru hmm. Abdou na si làmb Ahmed Diène suñu si làmb ak cette yi ñëw pour tëgg làmb te amuñu xaalis ñu wut ay sponsor ñi leen a limal hmm. dañ daan jël xaalis fay mbër mais booba cachet yi tollul fi mu toll tolluwul nii à ñaata lañ daan fay mbër yi booba deux trois cent mille deux cent cinquante mille trois cent mille quatre cent mille ba ba saakub ceeb mu nga jar deux mille huit cent franc litre diwlin quatre-vingt-dix franc boobu boo amee benn cinq mille di nga ci am saako ceeb deux mille huit cent benn. cinq mille junni. Hmm. di nga ci am litre di nga ci am onze litres d'huile boobu diwlin di nga jar quatre-vingt-dix franc litre onze litres ci cinq mille franc di nga ci am dix franc. Hmm. kilo suukar di jar cinquante cinq franc cinq cent cinquante franc ci am fukki paquet hmm. Nestlé di jar cinquante cinq franc cinq cent cinquante yi mën nga ci am mën nga mën nga ci am mën nga ci am meew hmm. ci benn cinq mille nga am ci ceeb am ci am ci am ci Nescafé maanaam ration bu weer hmm. ah dese dund bi seeru loolu ci doon doxal di ko doxal di ko doxal di tëgg làmb yi di fay ba ba cent mille franc xaalis la. ñu dem ba xaalis di ñàkk valeur. Mhm. di ñàkk banque de par de par son acquisition ni ñu koy amee. Mhm. yëf yi di yëg de surenchère surenchère bi yëg. Mhm. Bassirou Diagne moo jëkkati de làmb fay un million de franc mbay la ci ci ci dem bu jóg. ba làmb dox na nit ñi bëgg nañu làmb làmb jaa ngi fi football baa ngi fi ma hmm. jox la benn éclaircissement amateur de lutte yi daan dem di seetaani football bi ci dem bi jóg suñu benn mag buñ tuddee Bill Sall yàlla na ko yàlla ooyee fa suuf ci kaw mu nga dëkkoon tëngëj dafay tëgg làmb arène sénégalaise hmm. match football am ci Demba Diop mu am ñu ko toogal Demba Diop moom mu nekk fii hmm. ñenn ci Demba Diop bëgg seetaan match ba mu jeex pour ñu jóge Demba Diop ñëw seetaan ci combat de lutte bi li ko defee hmm. dañuy traîner grand combat ba Demba Diop jeex gars yi man fa jóge pour ñëw hmm. seetaan ci dégg grand combat bi ci arène sénégalaise yooyu moo daan am daan mhm. nga gis ko dem marché Thiès football yi seetaan marché Thiès ba àggal mhm. bëgg ñëw Dakar fii dégg nga seetaan ci làmb yi marché ba jeexee Thiès nga dawal quatre vingt kilomètres yi daw ko ci benn waxtu ba ñëw fekk ci mhm. làmb yi guddee foofu la jóge woon d'accord dañ xaar ñu jëkk ci marché yi ñëw mën ko seetaan si mais sinon Babacar Diaw mbër mbëri mag yi fi nekkoon ma jël ma jël suma mag Mamadou Thiaw Mbaaw te mu ngi bu Mbour en mille neuf cent cinquante trois booba tamit jotagul mm-hmm. bàyyi suma bàyyi bi bëre ba dem toog jàpp jàmburam fóori du ñëw fii Sénégal ñëw Ndakaaru daan ñu bare bare bare gi fi nekkoon bi ko ba di daan booba timis jotagul mm. six moo jot maam góor bi Njaay ak Robert bi Robert ñëwee man ñi fi man ñëpp dimbali leen ñu boole ko ak maam góor gi moo di ko daan te bés jotagul Papa Kane ak mbay gi seen ñaari combat ci démb jëm ci bés jotul hmm. léegi nag da gis làmbi léegi mbër yu ñëw andi mille bouteilles camion remorque la ñu jël yeb ci bouteilles muy ñëw ñuy tooyal suñoo bëre di sangu di sangu di sangu di sangu di sangu hmm. ñuy màcc di wër ku nekk ci làmb jeeg sëriñ làmb yi ci biir làmb ji hmm. dafa amatul discipline sur le plan organisation organisation du caageen na ñuy toog fii ñuy toog fii ñuy toog fii benn batterie moo amoon ci biir làmb ji ñuy tëgg hmm. Daouda Faye mooy jur vie cinq Faye Baye Mbaye Dieye Faye mhm. Daouda Mbaye mooy jur ma Cheikh Mbaye mu bàjjen Fatma Ndiaye mhm. góor gi laama bu naa baas Guèye mooy jur laama ñooñ ña doon tëgg làmb Baye Jogoy Ndiaye ci wakaam di tëggal Baye Ousmane Dir góor gi Latir Raan ci mbot di tëggal Baye Ablaye Diop mbër mhm. làmb ji buñ ko tëggee ci biir ci biir benn géwél mooy ñëw mooy tuusal ñëpp ñu dem ba yëf yi gën a neex séeréer si ànd seen batterie hmm. seen i géwél maa seen seen maa seen moo daan tëggal dul bàkk saar ba ba dul bàkk bu nga jógee ñoo joor ñëw fi saf xorom mën a bëri sampal ba dee kenn mënu ko woon dañ hmm. mais looy xool ci làmbi léegi ci biir géew bi il y a quatre quatre cinq six ba mbër mu ñëw ànd ak sa di ñu déglu. tëggkatam waa ak géwélam. finalement sur sur le plan folklorique on ne gagne ab plus absolument rien du tout parce que biir làmb ji mbër mi aye di bàkku dañuy arrêté batterie yëpp ñu tëggal kooku mu bàkku ñëpp dégg li muy def. Mhm. bu paree keneen jël. Mhm. mais léegi somboxloo bi ci biir làmb ji ak tëgg mi fu ne nii ñu jëfa tëgg. il n'y a il n'y a plus maa ngi doon bëgg a ñëw ci xarfa xuufa yi eh, wax nga sànq ne bokk na ci li de làmb dañuy ñëw au que ñu jublu ci mbir mi nafa di xëppook ko euh, ay yëf euh, ba xëy na sax yenn saay bu jur leneen alors place u xarfa xuufa googu ca làmbi démb lan la woon yooyu xam nga nit ñi toog sol mbubba yow nga def yaramu nen ci seen kanam waaw ku nekk di la xool hmm. nang bopp bi xoolal dënn bi xoolal loxo yi xoolal tànk yi xoolal xoolal. Mm-hmm. lan baaxul. waaw bi def itam ci kanam nit ñi. Mm-hmm. nga sangoo saafara takkaay jàllaaj muslu ci bëti nit ñi. Mm-hmm. ñaari catégorie moo nit ñi lay xool. nga mucc ci seeni bët. parce que mooy ba tey xool làmmiñ mooy wax. te làmmiñ jigul ban topp laa nit. waaw. kooku benn facteur ñu noonu deuxième facteur bi ki ngay bëreel dafay def comme yow mais mm-hmm. nag kii naa fexe comme dafa bari doole nañ ma téye loxo yi mm-hmm. ba du mën a dóor ba du mën a jàpp mm-hmm. nga dem ci beneen sëriñ mën na dinaa la téye tànk yi ba bu taxawee day lox du am équilibre nga dem ci beneen sëriñ mën na dinaa fexe ba bu la xoolee ñaar nit léegi ci ci kanamam wala ñett gëluma gëlamal sa adversaire wala nga dem ci sëriñ mu ne la kii dinaa téye biiram mu nekk biiru xarandam buy métti ba nga xam ne bu duggee ci làmb ji su waree dër bi mu lay métti hmm. déconcentré mbër mi moo la xar gi foofu yooyu nga ñëw nag ci làmb ji nag war nag def ay effort pour daan hmm. parce que am na mbir yoo xam ne boo leen jekkoo ci kàmb bu ñu duggee ci jiw bi am nañ fexe buñ ci génne ba ñu daajalee ñu ñibbi. Mhm. kon nag day fekk nag muy mbir mu am waaw waaye dem yenu ay wañ ba tey ni kaay dem ñu dem fu ne nga dem lu la ñu jox la ko la tricherie qu'il y a sur plan mystique dans les dans les arènes. Mhm. xar nga fu ngay wax. sow mi ci làmb ji mam góor moo ko fi ànd ak mbay gi. ñaar hmm. ñuy tuuroo sow. waaw foofu la génne. d'accord béjjén ñi ngay gis ñu di ko joxañ di ko sànni ci gannaaw. Hmm. ñu di ko for kooku duubal lees moo ko fi andi. Hmm. ndaay ngay gis ñuy teg ci làmb ji kooku Boy Bambara Alioune Camara moo moo ko fi andi. fourneau yi ñuy taal waa Caaroy Géej ak waa Fass ñoo ko fi andi. picc yi ñuy andi di ko bàyyi muy naaw mhm. waa caare daan nañ ko def ak yeneen i dëkk mais yow bu fekkente ne dañu andi ndaa nga andi ndaa toj ñu andi soow nga andi soow ñu andi picc nga andi mhm. picc ñu andi leneen finalement bëri ci seen bopp ils ne ki qu'imiter mhm. ce que font les autres sans pour autant benn rendement sur le plan sur le plan am na benn bu ma fàtte xànc xam nga xànc déedéet écorce garab hmm. écorce bi nekk buum hmm. xam nga corde yi buum la buum la mais buum ñu ngi koy jëlee ci gu écorce guy la jël raw ko. d'accord ah mooy loola di mel ni cercle. ah ma ne loola di mel ni cercle la. voilà loolu mooy xànc. dañ ko jël di ko raw xam nga hmm. boo ñëwee ci am boo demee ci àll bi di gis guy yoo xam ne dafay xolleeku ci suuf hmm. kooku dañ ci dóor jaay si daal di ko téye ko ci kër yi dëkk kaw yëpp mën nañ mag ñoo ñi ci bari mënoon nañu raw boobu ci noonu lébu dañuy raw boo pour bu ñuy ndox hmm. buum gi koy dugal ci teen bi mooy mooy goj bi mbaal yi ñuy yóbbu géej buum yi ci nekk dañ koy raw boobu liggéey yi nga xam ne ñooy tambal yi ñedd yu mag a mag a mag métier nag dañ ko daan raw mm-hmm. léegi Robert Diouf moo fi andi xànc boo ci làmb ji moom wàcce ko ci diggante ci ci nekk ci diggam mm-hmm. ba ñu demee da war a ba ñu sifflé mm-hmm. mu wàcc xànc googu à la hauteur de ses de ses cuisses écarté tànk yi bu ngi dokk ba nga xam ne y a plusieurs formes il y a plusieurs formes mystiques ci biir làmb ji mais li ci ëpp tricherie la da ngay ngemboo tey ba pare jël benn morceau bu xonq def ci sa ci sa bisit boo lëgee ma ñëw pour morceau bu xonq hmm. gannaaw souvent que la ñëw indi morceau bu weex man tam bu boo gën a xamaat yow lëgee su ma ñëwee andi morceau def la kee di def rek moom la kii di waaye topp na ba fi nekk d'accord topp na ba fi nekk hmm. te man damay fi nekk man man écurie Fass laa bokkoon. Hmm. maam góor gi mooy suma mag moom laa daan supporté ci làmb ak mbëru lébu nag bu yeewoo fii hmm. mais da ngay seet li am da gis ñëw ci Assane Baye Fall yi benn benn doomu ndar la dafa jógee gétt ndar ñëw Ndakaaru aran Sénégalais. Hmm. dëréw fa mu ñëw Iba Mar gars yi du ñëwoon ndeysaan daan na gars yi damay damay maye combat junni junni suñu xaftaan bi gars yi di yëkk suñu ba maam bi wax tànk tubéem mm-hmm. bëri sa ñetti combat ci saaba ñu ne waa kii kan la ñu ne Assane nga dëkk ndax xam nga kooku jéewul saafara sama ñëw mm-hmm. takkul xaaw sama ñëw mais mais làmb loolu la li am ci làmb bi léegi trente quatre mille bouteilles nga yàgg ko ci benn cargo bu ko andi benn mm-hmm. benn benn benn porte char mu ñëw ci làmb bi fu ne ñu daw faak i butéel fu ne ñu dugg fa yu kenn xamul kooku du du du làmb de kon moo la déggee xar fa xuufa am na ci solo waaye du lépp du lépp sëriñ bi la jox kàndaar nga ñëw ci làmb ji takk la ngay yooyu yëpp c'est du hmm. ci làmb ji hmm. sëriñ bi lay ñaanal mu nga sa toog hmm. jox na li ma ba pare nga ñëw war ko defar ci làmb ji ñenn ñi li xale yi naan dañu yor seen marto di dóor di nga dem ci fukki sëriñ ak ñett mhm. ku ne nga jox ko xaalis lu ci bari ci cachet yi sax ñu ne ci sëriñ si lay yem waaye dama ne mhm. ma ne ca ca dañuy wax loolu neex mhm. dañu dañu dañu lépp gëmuloo ko la fay cent millions nga jël cent millions nga jox sëriñ ah dañuy dégg yenn saa ñuy wax ay million yu bari ne moom lañ jox sëriñ si waaye dama dañuy sóob man ci laa bokk dañuy sóob xam nga li ma lay li ma dem ci làmb ji. Mm. dem seeti ji sëriñ jox ko xaalis pour ñaanal la. Mm. da ko weexal. sa mm. waa koñ jóg ku ne ñaan lu ji sa papa sa yaay ak jaay boo fi dëkkule say mbokk sa kaw nga ku nekk ñaan lañ waa kaw ngay ñaan doo ci jot dañuy toog ñaan ko di sax. waaw am na ñoo xam ne sax cofeer rek la am. mais te soxla yu si ñu ngi lay ñaanal kaw nga ñaan di fekk sa Dakar. du du du duñ la jox dara. deuxième bi say supporter dañu wuti gi sëriñ pour nga daan xam nga uti nga sëriñ ak say mbokk. waxal un. say supporter uti gi nañu sëriñ pour nga waxal deux. di dëgg. say adversaire yi nga xam ne. bëreewloo ak ñoom dañ la koltot dañ lay sot dañ lay soxlu pour nga daanu. waxal waxal droit. droit nga ñi nga xam ne ci làmb ji dañ ci carte xaalis. Hmm. teg naa ci kii teg naa ci kii. ñooñ ñu jël seen deux millions ba trois millions ba quatre millions di ko teg ci mbër dañuy uti ci sëriñ pour que mbër biñ teg seen xaalis daal. ah kon ñiy bëree mujj na ñoo bari di. waaw dama ne xam ne mu toll. <laughs> dama ne. Mhm. maak mu xam làmb ngay waxal. waaw léegi ana palaasu doole ak xam-xam bëre ci làmba. palaasu doole moom laa leen jëkk wax sànq ne beneen xam ne ki ngay dëkkanteel tegoo ngeen yàgg moom dënn puusante ngeen xam nga ne kii am nga doole boo ruufoo ak moom mun ngeen bëre. Mhm. palaasu doole foofu la nekk. palaasu xam-xam ci bëre bu yooyu yëpp jeexee. ba ñu sifflé fa ngay songoo ak bërëb mi ngay bërëb fa la xam-xam nekk mm-hmm. maam góor gi dafa wax ne mbër mu ciy bëri ak maam góor gi amuloo benn calcul ci biir bëri mm-hmm. dégg nga wax bi mm-hmm. calcul bi mu ngi nekk ci contact bi su amee dans le corps à corps foofu la xam-xam bi di génne ma jox la benn benn exemple Mamadou Thiaw mu nga dëkkoon mbaaw Cheikh Mba baa ngi dëkkoon Mbuur mhm. Cheikh Mba ba mu doon bëre ku mu songoon boo lay daan ci technique da lay daale bu gaaw gaaw gaaw mhm. mu bëre ak Mamadou Thiaw ñu bëre rek mu wër ko ndomba wër ndomba mooy def ko ceinture par derrière dañu bëre ñuy roofoo mu am rapidité comme de l'éclair mm-hmm. Mamadou Thiaw Cheikh Mbaba féete ko gannaaw mu féete ko kanam foofu xam-xam moo fa génne ma Thiaw mu daan ko waaw mm-hmm. même action am na diggante Mbaye Guèye ak ndem si yàlla gisaa njàmbur ñu ngi ko bëri Iba Mar Diop ci guddi mm-hmm. Mbaye Guèye c'était au mois d'avril il a plu cette nuit là mu ñëw ñu bëri ak saa njàmbur saa njàmbur wër ko ndab ba keroog j'ai frissonné mais mbay yàlla ko mu génn ci hmm. xam-xam génn na gis naa combat mbay gay ak si yàlla Moussa Diame ci stade Demba Diop hmm. Moussa Diame nekk un super poids lourd booba mbër ku fi yëpp Moussa Diame ak Doudou Baka Sarr dañ leen di wàññi hmm. mbay gay songo ak moom ci première action def ay manœuvre ñun ñëpp dañ yuuxu may fexe benn ceeku ca këru génn ma ne mais ki dafa dof ki nu muy def ñi hmm. ma àndal ne mais nañ tey waxam fan lu jëm may tànteel may ak moom ci dooleem la ko daane hmm. loolu mooy xam-xam ci bëri am na ku ñu naan wax Pierre Teneng kooku soo bëree ak moom bu ñu siflee lu sa loo gaaw gaaw loolu làmb ci say tànk xamal ne moom la mm-hmm. bara bara mu nga dëkkoon fële ca ginnaaw Kaolack dëkk bu ñuy wax Kër Madiabel di jënd Kër Madiabel ak wàkk ngoñu lu dëkkoon mm-hmm. dafa mënoon béré bi mu ngi tànk rek kenn mënu ko kenn mënu ko woon gaaw Ama Baldé bi tey bàyyam Falaye Baldé bi muy ñëw Ndakaaru sànc bi kiitti leen ci rue 17 angle 22 fii la bii de CNCS fi la lukkee ko mhm. ama suñu jarbaat la ndeyam lébu la xama xamal nga loolu ama waaw xam naa ko miiru ma mi déedéet loolu moom xaw ma ko ci woon waaye moom ama xam naa ko bu baax rek boole ko ci papam di ko jur muy Falaye Balde mhm. bi mu ñëwee Ndakaaru dafa ànd ak Duusuba Fodé Duusuba Fodé Duusuba waaw Fodé Duusuba ñoom ñoo bokkoon Mm-hmm. booba Doudou Diatta benn Jola mu ngi soon bàyyi ko Casamance également. Mm-hmm. Doudou Diatta mu nga bàyyi ko Casamance. Fodé Youssou Ba mu nga bàyyi ko Casamance kii nekk Jola kii nekk Pël dëkk Serigne. Mm-hmm. nga dem Pikine fekk fa un champion d'Afrique hors pair Pape Diop. waaw écurie Pikine mbooloo. xam nga ko. xam naa ko bu baax. moom Boy Bambara. Modou Pouy Papa Touré ñaataa ngi noonu. Mm. du du ñeent. def na de Arouna Mané juróom. Riche Niang Thiawé juróom benn. Mm. première génération lutteurs yi nga xam ne ñoo doon def lutte gréco-romaine. Mm. jubloo ci campus olympique yi ñoo ñu la woon. c'est avec le temps que ci la Amadou Kati Diop tubaabu joor ñëw duubal lees ñëw xam nga ñoo ñu bokk ñoo ñoo ñu bokk bokk bokk ñu waaso waaw dégg nga ci séeréer dégg nga ci lébu dégg nga ci tukulóor dégg nga ci jeneen ñu ànd am une équipe ñooñu compétition yooyu ñu daan bokk la saafara bi ñu ngi koy saafara woo ci kër gi mais duñ dem war a yëg ci ci ci ci ci ci foofu la xam-xam di génne. d'accord léegi nag xam-xam amatul lu booy mën nga am ci koppar yi ah ponk ak lu ko gaa gaa yi mënuñu la. waaw waaw. daal la baab baab laa baab nga ñëw ji ñu duma la daal <laughs> nga dem feneen beneen ñaar ñëw la booy am na paas bu nekk dëkk sàngam dañ ko seeri kaa bu garaaw bu la mm. nga dem jël sa xaalis joxe te am na mbër yu ci bari yoo xam ne dañuy digaale ak sëriñ baagal duñ ko fay mm. li ma lay wax nii. am na jigéen bu dëkk fële ca Saalum. Mhm. ca gannaaw Kaffrine. Mm. boo jógee Kaffrine yaa ngi romb dëkk bu ñuy wax këy yi. Mm. nga teg ci bulal dem jaxaaw Saalum boo ñëwee ba juut ngel da ngay bàyyi juut ngel ci tari bi jàdd ci seen ndeyjoor. Mm-hmm. dëkk ba kàkkare lu tudd ku jigéen moo fa nekk. sëriñ yu pël la lu daan ngeen ba ay mbër mhm. yaa ngi dégg li ma wax maa ngi dégg di nga diggaay rek maam ba bare doo ko fay mu ay say mu ay say dàng loolu doo daan mhm. dem ci sëriñ wax moom mu jël coonoom liggéeyal la mhm. nga jox ko avance boo daanee doo fa jarat hmm? waaw da du leen waaw bu leen ci n'importe quoi dans dans dans la lutte. ñun dañ doon ay mag ñu dem ci làmb ji ba ñu demee làmb ba ñëw kenn ku ci nekk buñ la joxee lu ñu sëf dañu naan demal nga andi ko nga andi ñu fecc ko lu ñu ajoon fële demal nga andi nga andi ñu fecc. Mhm. lépp lañu ñu ci suñu adversaire après le combat ou le soir ou le lendemain mhm. dañuy daje ak suñu bàyyi mhm. toog di dindi par benn di tekki c'est pour libérer l'adversaire le combat c'était hier takkante nañu démb bëri nañu démb daan nañu wala daanu nañu nañu tekki la ñu defoon ko ci ndox tuur ko géej. kon yàqante daawul am doomu ma ne yàqante daawul am. yàqante daawul am. Mhm. mais léegi nag dañ lay takk. te duñ la tekki kon ah, dañ lay takk te duñ la tekki. dañ lay takk dañ la tekki. on a vu à la télévision. ci mhm. rajo bi ci télévision bi ci YouTube bi. Mhm. mbër mu dëkk caaro yi mu ne diw moom a def nangam diw moom ma diw moom ma diw moom ma. je ne sais pas de mais ñun xamuñu woon loolu. sama xel de daj na Xaadim Njaay moom. ma sama xel daj na Xaadim Njaay. ah xam ak xam moo tax man de du ma tudd mhm. nag bëriwu woon de waaye bëri yoo ma woon bëriwul ñu. El Hadj Ndiaga Samba la ñuy dalal ci démb woon. danaa ñëw seetaan dinaa jàpp sama jàmbur. Mhm. yaakaar teg suma gémmiñ xool hmm. li ma xam ni xoole ak noppee ma ko may hmm. xoole ak noppi ak màndu ci yëfu jàmbur ki ma ko digaaleel nag buñ ci àggee hmm. lu ñu seq dinañ ko jëfante bu paree nga noppi ma noppi kon da nga daan bëree yow dañ ko daan foyee ah dañ ko daan foyee dañ ko daan foyee naa mba gël tàppe benn hmm. jege naa jàngalekat la woon instructeur la waaw dem naa ci àll bi béréndu na Kaolack sax sax sax lañ ma fa jëlee ci affectation ba maa ngi jàngale école Ndakane hmm. dama dem bëri ji arrangement benn comme mbapat bu fa amoon waa ji daan fa ñu bëri hmm. ma ñëw yëf yi neex rek comme li bu laa rek ma dindi karawaat bi <laughs> ah su meeku <laughs> rek dugg ci langue waaw bëri naa estimé ko rek ñu ñaan mais ki kan la ki ki dafa dof xanaa mais ki ñu ne mais ki mais ki ki dëkku ki ko ma te ma dindi palte bi daal di ko dénkaane dindi karawaar bi tëbal ko daal waa ji daal ma dégg ko loxo ñu ne ki dafa dof xanaa ma àbb sa ñu bëri ma neexle su ma directeur école. yéeg ko. mais il n'est normal que dans son école. Mm-hmm. mu am un instituteur un éducateur bu bëri làmb ah, le lendemain ci dem seeti inspecteur de l'enseignement élémentaire ba fa nekkoon. Mm-hmm. je ne cite pas leur nom. Mm-hmm. pour que ñu affecté ma ma génn ma génne école j'étais à l'école Ndangane en 1962. ah oui. oui c'est de c'est à partir de cette soirée de Mbapat moo bëri. ci la ma ka fa nekkoon comme directeur d'école du ma tudd turam yàlla na ko yàlla oyofal suuf ci kawam boole ak ah, inspecteur ñu mhm. affecté ma Fimela dans le département de Fatick. d'accord ma sant ki yàlla parce que sama affectation Fimela. tax mhm. na ma yokk xam-xam ci xam nit. Mhm. amaat ay nit amaat ñoom xame yu bees. parce que chaque jour que Dieu fait soo fee xam gëñ nit am nga un milliard de francs. fi Fimela ba ma nekkoon. xale ma fa jàngal ñu nga fa ñenn ñi ay ay mairie localité lañu mm-hmm. ñenn ñi ce sont des informaticiens parmi les premiers je peux en citer un mm-hmm. il s'appelle Moïse Bass mm-hmm. il faisait partie des meilleurs techniciens en informatique de la SENES yaa ko jàngal may bàyyam la maa ko jàngal mu def ma bàyyi def ma confident kooku mën naa ko tudd parce que on est copains on est très copains j'ai été ami à avec tous mes anciens élèves ñëpp ma élèves yi ma jàngee ñëpp ñëpp seen bay la seen ak seen xarit la. Mm-hmm. te du ma ci dem kër kenn du ma ci dem ci bureau kenn du ma ci téléphone kenn du ma ci woo kenn. Mm-hmm. mais fi mu laa laa dem ci affectation buñ ma ne dañ may sanctionné ay dëkk dañ may buñ dund foofu laa dem xam fi mu laa xam Djilass xam Diofior xam les îles Mar Lodj Mar Fafaco Mondé Djirnda Bassoul xam fawa bii kay xam bisel xam jawar eh, xam faji hmm. simila googu ma nekkoon hmm. tax na ba am naa turandoo boo xam ne mu ngi nekk fii ci Diofior bi ma ko bàyyam di tudde tural ma ko tural ma doom bi ba xale bi am presque juróom-ñetti weer te xaw ma ko ah. moom tural ma ko xaalis ma sant yàlla ci sanction ba la ñu ma defal bëree la fa yóbbu boo ba bëree ma fa yóbbu tax mhm. ma xam ay nit ñoo xam ne tey bu ma amee soxla si ci Dakar mhm. su ma leen ko waxee ñëpp jóg àdduna ut nit moo gën ut xaalis dëgg xaalis dafay jeex dëgg la làmb ji am polo boo gisee les anciens lutteurs yi fi nekkoon mhm. ay Doudou Bakka Sarr yàlla yërëm Moussa Diamé Maam Góor gi Ousmane Ngom Souleymane Diaw hmm. Jibi Jaañ ci Waalo Baara Jaañ ak Maraka Jit Landing Jaame ci Thiès docteur Faye ci Kaolack Issa Dieng ndem si yàlla ji Mor Fadam bi ñu Amadou Kati Diop sunkañ sunkañ golo wàkk leen seen morom yéeg ba ci bisu jën suñu fakk hmm. ñooñu ak Babacar Thiaw bookam ñooñu nga xam ne bi ñu demee ba bàyyi bëre dañu dayroo ci sànc bi ci la ñu créé des anciens lutteurs mm. mais bi ñu ootee assemblée boobu la ñun ñi nekk Ndakaaru hmm. dañu seet suñuy xarit ak suñuy rakk ren dañuy def première assemblée te gaañu kat ils viennent des bon dañ togg añ hmm. ñaan nuñu xaalis kenn waaye nuñu kenn dañu ko suñuy rakk participer hmm. ñu togg añ ci sanc bi mais keroog les anciens là ku ci ñëw dee sa morom rek da di songo hmm. maa ngi fàttaliku Ibi Pël mu ngi dëkkoon gaaya pël la woon bu mu doon bëri kooku moo ak Falaye Balde yaa ngi dégg de hmm. baa ngi Ama Balde maa ngi lay dégg bu baax përe ba jaxasoo Falaye daan ko loxo ba damm ñooñu bi ñu dajewaatee keroog kenn ku ci suuf rek si morom rek. Hmm. da da dañuy jooyoo. Hmm. des larmes de joie. ndeysaan. ils se sont tous souvenus de leurs anciens temps. Hmm. ni combat yi méttee. nga xam ne ces adversaires d'hier aujourd'hui s'entrelacent l'un euh, dans les bras de l'autre. mais xam nga yooyu mooy sport. mooy sport boo xam ne nag. da ci ciy génn nekk bi ak sa morom. Hmm. di waxante yu ñaw jël télévision bi kuñ ci invité nga mel ni kuy yë yë yë xamu deewul nga jóge ci jël jël internet ak réseaux sociaux yi du ne nga di ko wax. Hmm. ci sa nawle boo xam ne tey l' exemple est bi ma bi ma Fadam gaañoo ñu ko dëkk. du hmm. mbër yëpp Pape Maba Demba. Mor Fadam nekkoon un champion un champion au cœur de Lyon. boxeur la woon. Hmm. xamal nga loolu ci moom. box Mor Fadam déedéet. boxeur la ak force de frappe bu óor. Hmm. mais amul woon xoli mbër. Hmm. il n'était pas méchant. bu bëree ak yow rek sa am na occasion gentiment daan na daal di jàpp jàmburam <laughs> Fadam bu amee occasion rek daal di daal classiquement dem yoonam bi gisam mbër mu daan doodu ci kenn kaayu ci kenn kenn kenn kooku jéemee daan danaan dara bon naa fexe ba jàpp ko rek xam naa ne boo ko jàppee mu jëf man Samba laa sant ma Mbaye la sant xaw ma woon sant après nag bu bàyyi biir dañu dem waaw mais grand grand dëkk yow yu ngay baax yëpp Samba rek nga sant ma ne ko mais su ma nag yow xaw ma ne Mbaye nga sant way kaay ma yóbbu sa baat tey day sant sant ba la ñu bëgg daje un gars un gars comme Mor Fadam nekk champion d'Afrique ci bëri lutte gréco-romaine lutte traditionnelle ba pare nekk boxeur ak force de frappe bu wër. Mhm. bëri ci làmb ba te kenn mosoo ko mu gaañ. tey de mbër lu mu la mënee woon la ko. mais dana mais mais c'est inintelligent lay sax faa mu la ne moo la ëpp doole ak mën naa dóor. ma ne bala lay daan faa mu woon la ne mën na dóor ak moo la ëpp doole. mais mais mais mais jaru ko benn xale ngi dëkk fii ci ci ci ci Yaraax Moussa mais mais da da lay dal classiquement dem yoonam du fi taxaw di a wax ne ñoo doon dëgëral ma. su ma ñu am papa Yax bi ñu demee. Hmm. dañu am Abdou Karim Dia ñëw. dañu amoon seen benn bailleur. boo xam ne moo tudd Mamadou Seck. Hmm. mu nga dëkk Tente Ba dans le département de da daan jaay ay montre hmm. ci marché sand gi. sand gi mu doon jaay montre montre yi mu ay montre de classe la. Kawni Prima ay Flika ay Mut ay Remington yoo xam ne comptoir franco-suisse ñoo ko doon jox. Hmm. comptoir franco-suisse bu ngi nekkoon ci Place de l'Indépendance fii kaay mujjoon nekk léegi nii. Hmm. boo ñëwee indépendance romb ak wàllu Afrique jéggi rue Parent. Hmm. bâtiment bi ci toog foofu la franco-suisse ku bëgg a tëdd làmb da ngay ak moom. bu toog ba mu lay xaalis mu lebal la. nga def fa làmbaar tëgg ko bu dimanche ba ba ba ba làmba ji tëjee mu ñëw toog ngay jaay bii muy encaissé ba xaalisam ba mat mu dem mm-hmm. nga jël sa bénéfice nga dem yoonam foofu liñ ci daan daan fa démarché ay combat di fa mm-hmm. waxtaan ñi bëgg tëgg làmb expression yi promoteur mm-hmm. léegi la génn ak sponsor léegi la génn bokk le monde daa évolué. Mm-hmm. avancement am na ci réew mi. Mm-hmm. kenn du ko bañ. mais soo bëggee tëgg daa làmb nag di sukkandiku ci ay sponsor mm-hmm. yoo xam ne quand il n'y va pas leurs intérêts ils n'investissent pas da nga tëgg làmb. Euh, Samb bëggoon nañu itam xam solos bàkku ci làmb. mbër mi buy dugg si dañ koy bàkk. waaw kenn ku ci nekk da nga am saison rythmique bu ñu lay tëggal. saison rythmique. ku ko dégg ñu ne ko ku dee bàkku diw la nga jóge ci bàkku bàkku boobu mm. bàkku mooy di tudd ñi nga xam ne yow yaa leen daan waaw maam góor gi bu dina bàkku waaw wax ne diw mi ñuy saw sandal laa ko dóor faxet ko mu toog am na diw mi ñuy saw dafeen laa ko dóor téxe ko mu toog comme maam góor gi njaay la sant géej jóob sant jóob nga dégg ci bàkk bi mu bëri jóob géej ba pare daan ko mm. di ko bàkko daal di wax ne Guèye Diop mi ñu sow mhm. jooju moo ko bëgg ab ceet mhm. <laughs> saa bu jabar jitaale mu lal basan toog kalante gi dugg fa kalante gi dugg bu deexee ci mun a texet rek ngay saa bu timab ceet mën ñu ko koy mol est-ce que tu bi daal di dugg ci mhm. ambiance bi ci bàkk bi la génne dëgg la nga gis Doudou Baka Sarr ndeysaan yàlla na ko yàlla ooyee fal suuf ci kawam maam góor gi bëreeg moom ba pare mu daan maam góor gi maam góor gi fañ ko bàkk hmm. wax ne Dudu Bàkk Sarr voyageur mbaam <laughs> voyageur boo xam ne mbaam lay dugg hmm. mu ne maa nga daje ak moom ci yoonu ñoo joor mu nga war mu nga war mbaam boo xaale ak cuuj ci waa soo xam nga yaa ngi reetaan waaw waaw dafa reelu ba ambiance baa ngi noonu hmm. et cependant Dudu Bàkk buy dem ñoo joor gaa lay dugg moom lay jàlle moom góor suma nag xam nga sa naa def may sondu hmm. bu ma ko jàppee dina xam ne yoonam nekk si dégg nga may wax waaw <laughs> ma ne ko mais gannaaw lan la wax mu ne waaye mu ne maa ngi war mbaam mboq cuuj ah <laughs> moom moom waaye kii def kii def may am ñoo jël ko fay dem dugal ngay dugg alors c'est genre d'attraction là mm-hmm. yooyu mooy mooy ambiance bi ci bàkk falang mm. aussi marqué nañu bari ci ci ci ci bàkk mais falang mm. làmmiñ bi moo neexoon waaw xam nga bu ne moom d'abord day yëg tànn boppam. Mhm. Abdourahmane Ndiaye Tine Ndoye mooy yaayam Tine Ndoye Mati Dieng yaayam. Mhm. tàgg boppam wax originam parce que Abdourahmane Jandeer la dëkk Jandeeri géej seen dëkk amul géej mhm. garab gu ñuy wax géej géejaan moo fa am mais il a des parents qui sont venus du mu saf xorom xam nga mu ne Masamba Mbiri Ndaw bay du raas deux mille à travers cela man ma am béy moom ma am garab goo xam ne sëddéem la mhm. sëddéem doom bi mooy sëddéem mhm. en tant tel déem la d'accord on est bien fi mooy garab gi mhm. doom bi mooy mooy déem mu ne Massamba Mbir Ndaw béy du raas déemi man suma suma béy ñeme ñu ma Abdourahmane Ndiaye bi di ko bàyyi muy dem ci ci ci ci kare bam di ko raas mm-hmm. ak li mu ci wax am na ci boo xam ne def ne Abdou Mbaye Tine tas nga réew mi moo daj am réew kuy sa danay falang mbay ngay jaay mm-hmm. qu'est-ce qui voulait tas naa réew mi bëri naa ñëpp daan naa ñëpp mm-hmm. ñi ma daan ñëpp jëlle yu wër réew mi ñëpp xam nañ ko mais ëllëg à ma kan mooy suma ndono kan moo may ci doon ba mu mm. ne Mbaye Gueye Ndiaye mm. Mbaye Gueye Ndiaye jarbaati Abdourahmane Ndiaye falang la bokk nañu jamono mais bëree bi falang bàyyi ci la Mbaye Gueye Ndiaye continuer góoru bi mu gaañoo moom falang Mbaye Gueye Ndiaye nekk chef du village Janeer bi Mbaye Gueye Ndiaye gaañoo léegi dawul far doy moo fa nekk mm-hmm. suñu mag xoolal di bàkk loolu la da xool di bàkk saar bu ñëwaan mm-hmm. ñu wax olof mënul bàkku mhm. mais fecc la mën hmm. il avait un à lui te bu ñu defaan sër yooyu wër seen ndigg yi aussi dafay gën a jox mbir mi xorom mais day mais gis nga dul baka day day day ñëw odd njambur njambur séeréer takk sol mbubb bi xam dafay am ay seetu ak dere gaynde yi ànd ak ànd ak géwél jigéen ñi ñëw di ko wëy mu ànd ak ñoom di fekkee tu as vu le en son a eu Robert en son nga gis euh, Double Less bàyyi xale bi Ama Baldé ba daan dem làmb ja. Double Less bàyyi Balla Gaye. bàyyi bàyyi bàyyi xale bi mu tudd. Balla Gaye de. bi naan dem làmb ja. Mhm. day garab bu ñu romb dama ci bànqaas de petite bànqaas après yor ko ànd ak moom ci ànd ak ñu ñu tëgg tëgg soose yi. yaa ngi ne un champion hors pair. Mhm. ma dëkkoon Pikine. mi nekkoon Pikine ba léegi mu nga fa. waaw xam nga fu muy nekk léegi. déedéet. boo demee armée de Pikine. Mhm. ci Rudis. Mhm. fa lay fay dugg moom kenn mhm. mooy bale armée bu mu set wecc. ndeysaan defaraat bàmmeel ba deux heures mu sangu jàpp julli. génn nga bu kuusam. dem naa daje ak moom armée de Pikine trois ou quatre fois. bu ci nekk dañuy daje xoolante rek mu sëñ ma sëñ. la cinquième pas mu ne ko su ma la yaa ngi nax nit ñi de. Mm-hmm. vraiment vraiment ak nañu doon wax ne noonu la meloon démb. mais dafa ma ne di jóge dama ne ma ñu ne ma ñëpp fii la ñuy mujjee. Mm-hmm. armée yi moo koy defar moo koy nettoyé moo koy commission bi fa nekk actuellement. Mm-hmm. ba xam nga foofu ñaar day fees ak ndox. waaw da day bokk ci ñaari liggéey. ndeysaan. nit day ut mujj bu rafet. mbër métier dafa ànd ak métier. koo ci xam ne dama dama bëgg a yóbbu sama a a taral sama waay ji d' accord ci lan ci làmb ji c' est pas suffisant làmb ji carrière la am à quarante ans tu ne doutes plus da ngay am xaalis ci làmb ji def ci un investissement plus nekk ci làmb ji am métier da ngay am métier mooy bambara mécanicien la woon mi ngi koy yóbbu police muy dem c'était pour seconder les forces de police mécanicien en même temps pour mhm. panne yu gàtt yi mhm. ak di dimbali gars yi nga xam ne beneen temps yi Macky buñ leen daan ji lu kuñ na kaay dem. Mhm. nga bañ papa kan dem si yi ñu doon liggéeyee kafal. Mhm. double les bi chauffeur la woon Birahim Ndiaye nekk na ci làmb ji di ci bëri nekk chauffeur liggéey si liggéey bi fa laami kër ak ay teraanga yu bëri bëri bëri kàrkar mhm. xale yi nañuy def bëri comme sport mais nañu métier boo léegi soo moytuwul la bëri nga jàpp si. waaye bëri sama yaay laa yóbbu màkk ak sama yaay am solo def na mbir du màgget maas gaay jeex. ñi nga xam ne ñoo bokkoon classe d'âge daan bëri na. saa yi ñu dajee rek dañ naan sama bu ma la jàppee bu ma la jàppee il se souvient du passé pour fo. mais bëreetuñu dañ ñu wax ne mbir du màgget. maas gaay sippi ñi nga maasel bu ñu bàyyi bëri foog nga toog. Voilà en gros ce La situation actuelle de la lutte mooy diggante làmb ji ak CNG situation bii fi nekk nii. justement loolu loolay tayal waxtaan wi sax nag. nañu seet làmb ji kenn moomu ko. Mm-hmm. mbër yi moomuñu làmb ji amateur yi ñoo moom làmb ji parce que bu ñëwul seetaan fi. Mm-hmm. kenn du bëri. su mm-hmm. mbër yi ñëwulee amateur du seetaan. CNG comité de gestion la. am na lu ko jiitu woon lu fi nekkoon des promoteurs particuliers mhm. wax naa la ko sànq mhm. dem nañu ba am fédération Adrien Fall jiite na ko fi mhm. ak Ngiraan Ndoy amoon nañ fi comité de gestion bu fi nekkoon Boubacar Seck ancien notaire ak almatiay jiite woon ko fi Ousmane Toye ñëw andi fi Alioune Sarr ñu ànd Alioune Sarr médecin de profession sportif la nit nag buñ lay jiitalee ci mbir nga def ko sax moomeel na nga fexe ba li nga moom bu mu yàqu un li nga moom itam bul ko yàq te fii la fii situation bi nii mm. ci yàqu lu jëm parce que nit dina am rigueur dina am discipline mm. dina am principe mais souplesse moo koy lalu les textes de loi s'appliquent mais ils demandent une clémence boo xam ne c'est dans l'interprétation des textes de loi sur les interlignes moom tubaab la dégg na olof dégg na tubaab mm-hmm. article un ak article deux soo bëggee dimbale ku tooñ da ko ci glissé un du ko laal deux du ko laal mais bu ne texte yi rek lan di texte yi wax lay def ku ko mënul te du sotti na oo mbër yi ut des personnes de bonne volonté mm-hmm. ut nit ñu mbaan ut nit ñoo xam ne dañuy am yaakaar ci ñoom mm-hmm. ñu def ndaje moo xam ne kuy ñëw doo ak ñëw ak une idée arrêtée mm-hmm. ka Alioune Sarr dem ka Alioune Sarr toog pour man ça me laisse indifférent. Hmm. man dematuma làmba seetaan ma làmba. Hmm. mais nag suñuy maam loolu mooy seen cosaan. Hmm. bu ñu sañoon tey jii làmb ji continué mu nekkoon démb ak barke démb ambiance bi neex. mais du ñu sàggan bay am làmb ci buntu bi gi. làmb ji bu tasaan agresseur yi raaxaloo tej ko ci bi. ñu tëddoo leen làmb ci buntu bi gi. waa Sicap am jàmm. tey yi fi war a feex war a war a gën a a neex. Mm-hmm. ñu bëgg ci xuloo ak ci xiiru ak ci ŋaayoo mbëri def groupe Alioune Sarr ànd ñi mu àndal ñeneen jóg ku nekk di wax mm. li ñëpp bokk ku wax bu mu yàqu di am bàkkaar de li ñëpp bokk ku ko sàmmul ba mu taxaw nga di ko sàggane di ko xeexe ba mu yàqu di ci am bàkkaar fa ni ngee dégg di fa am fa rek yàlla bindul doomu aadama pour muy foog mais fa distraction la ak la fa woon naa xam nga lan da déedéet rawante fas mm. rawante fas mm-hmm. ñu chinois yi di bëree judo mm-hmm. di def karaté ak aikido ak kung fu mm-hmm. ak sumu ñenn ñi bàyyi ko fa dugg ci sport de combat di def yoga pour pour jàpp seen bopp noonu mën naa daan fay fay rawante fas man làmb ji ñun ñoo ko moom jërëjëf Samba na ñëpp daje na ñëpp nekk benn kenn ku nekk génn xen bi ak métti bi ne sa xel ak sa xalaat ak sa xol ñu joxante la mais maanaam mooy am. na solo jërëjëf sàmb ñu ngi lay gërëm bu baax. amoon mbégte dalal la ci démb ak tey waxtaanee làmb ji ak fi mu toll li ko lay taayaloon di coowal CNG bi nga xam ne justement euh, ci la ñu mujjee dellu di gërëm Abdou Khadre Gaye mi nga xam ne sama xamanteeg yow ci moom la jaar. réccu wax dëgg yàlla lu ma leen xamee woon ndax njëriñ rek ngeen ñu jural. Euh, ci waxtaan yu am solo yi Samb jërëjëf. jërëjëf kon mbokk mu nekkoon seen émission démb ak tey ñu doon waxtaanee làmb démb ak làmb tey dalaloon ci Alaaji Njaga Sàmb xelam màcc ci lool ndax mu ànd ak mbëri démb yi tey itam macha allah fekk ko fi ñu gërëm jaaw jàlloo mi fare woon ci wàllu machine bi Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm